jërë ngeen jëf euh, mbokki internet yi dalate leen ak euh, jàmm yéen ñu ñuy topp su sunu seen bi di live Dakar 221 nekk si ay xibaar rek ñu daat koy euh, gis rek muy wër di circuler moo di nag le 6 bi ñu dëgmal kii di premier ministre bi di Ousmane Sonko faskee na rek daati amuluk ngan foofee rek sa Saint-Louis Sandar Eh, daat ko fay amal ba tax rek Mansour fay mu ne rek moom boobe rek maa ngi koy rek sa eh, gouverneur bu ndar loole nag mu xamle loole na rek eh, man ngi say woo ndoobi ndar yëpp ñu nu fëskee na perte bu baax a baax ki xamante ne si ne moo premier ministre ba di Ousmane Sonko faskee ne nekk foofa sa ndar ñu faske fa organiser ab tertu bu jéggu dayo boo xamante ne si rek kenn daati ko dul mas a gis suñ fàttalikoo sa jamonoy campagne bi Ousmane Sonko amaloon na ab caravane foofee sa ndar ñu jugoon sa mutakulol mbooloo mu takku lool daal koy toppoon ko ba na rek mbooloo moomee rek gisoon ko foofee sa Ousmane Sonko jamono yi campagne ba ba mu nekk foofee rek di fa amalu caravane mbooloo mu takku toppoon ko foofee sa ndar Mansour Faye nag jamono ji nag lu jékki dayoo la bëgg si ab théâtre te ndaxte nag moomet kontaan na bu baax baax li nga la Ousmane Sonko euh, nara nak amul ngan foofee wala ak visite foofee sa ndar moom di Mansour Faye dasi si kontaan bu baax a baax ba tax muy Euh, mbokki ndar yëpp population boobu ñu fas yéene rek génn bu baax a baax massivement rek tertu ki nga xamante ne si ne moo di Ousmane Sonko mbooloo mu takku lan fa bëgg a nemmeeku nag ñaati fas yéene tertu ki nga xamante ne si ne moo di premier euh, ministre ba di Ousmane Sonko fas yéene ka fa tertu tertu bu rëy rëy moom kooku di Mansour Faye xam la lu mel noonu nekkoon fi nag si nguur gi fi nekkoon sax ab ministre. wàllum transport ñu doxoon ko si moom kookee nag nekk sax si ki xam ne moo di Marème fay sàll nekk si goro ki nga xamante ne si na tamit moo fi nekkoon jiitum réew mi di euh, président Macky Sall kon nag Mansour fay nekk jamono ji laa maire bu Ndar moom nag mais xam le na daal Ousmane Sonko ñëw gum fa bëgg a ñëw bëgg na rek doomi Ndar yi population bi ñu daal di euh, génn euh, massivement daas kay terte euh, bu baax a baax moom kookee di Mansour fay di sàkk loole rek si li nga xamante ne si na moo di doomi ndar yooyee mu doon nag ak génn visite gu am solo loolu xam ne askan wi daan ko bàyyi xel moom kookee di premier ministre fas dem foofu